ne ko moom mbay waaw nañoo jël si seenam bi seen ban seenam bi mu taxoon mi ngi dagg seenam yàgg na ba tey mu ngi si man jàkkaar lu ci jar dagg seen na ko ñëw jël lu jar dagg seen ci jàkkaar punto di lekke be nga ko xeccu cale ko yasta nooy ma mais lan moo tax mais mais mais dégg naa keroog xaw ngeen a jàpp may ndam kii Tmax yàlla na yàlla may ndam bu sedd guy ndax liggéey na ko am na fit bi ay fit sax duñ ko wax ndax dépassé na am fit ak ragal yàlla na ko yàlla may ndam lafal ko cat. yee. <laughs> nga ne moo mënul kaj yi li mu li man li ma ko li ma li ma denc. mbay guy gi indi ma sax man Baaba Njoon moom ma indi woon du moom. billaay wallaay. ni mu la gën a féete xale loolu du dara parce que ma dégg mu ne la xale la. di loolu man je fais pas jugement man je suis naturel sama âge football moom mooy sama âge bëre. ba léegi te mënuma bàyyi waaw yow tamit mbay daf may xaar. mais man seenam bi nga ne dagg nga ko kay moo ma jaaxal. mi ngi sama rax ma jox ko xam man nu ma tax seen yooyu noonu. man du ma sax dagg seenam. xanaa mu génn mën a ko coppetee ko. mu def nan moom. def mu daw dugaa si biir da ngay laajte yow dof bi bu caméra yi taxee rek nga koy ñeme de am ngeen wéetee si waaw non leneen ngay xew. loolu ci kon mbay kër wax nii rek caméra yi tax nuy wax rek mais bu nu génnee amul caméra amul dara. non soo puub bu ma puubee ne la lekk sax nga lekk ko. da koy dóor par force. wala ma ñaawee la. dégg naa la keroog mu ne da ngaa xaw ma mag nga da ngaa demoon mu dëgër nga dellu seeg yooyu. man ma demoon liggéey ut fu mu pàq bu ma dugal saa yaay te yàlla dimbali na ma am naa ko léegi nañ ne seet làmb ji làmb ji dama koy téye kenn mënu si dara dama koy téye. te ci mbay ngay jaar. fa laay jaar. Grand Yoff day delluwaat làmb ji dañ koy téye loolu kenn du ko téye kenn du ko dindi. sa succès de woon na ci lamb day yokk nag jamono yow Wally Seck na sargo borom grand yow <laughs> yaa ngi rappelé laati woon déggoo ma de biir na ko day yokk borom grand yow mooy wa neex may naa la cinq cent mille may naa la cinq cent mille waaw encaissé guma ba léegi <laughs> Wally Seck Wally Seck saa yi téeméer yi na ñëw <laughs> sonn naa lool <laughs> ah loolu laa ko mu naan du def si ay seen. lu gaay yi gaay yi lu ñu gisul gëmuñu ko de <laughs> na téeméer yi ñëw sëñ bi. waaye si caaxaan yi waali waaw. adu ah, indi dëgg la yow na la may na la cinq cent mille waaw waaw dara. ana Youssou Dieng wax ñoom Youssou Dieng wax leen ci loolu. kii nu mu tuddati. Euh, oro njaga oro ak ñoom Ndiogu Mbaye. ñoom Ndiogu. ñoom daam. bàyyi daam sama téeméeri na ñëw. saa ñu def ko ci combat bi sax yàlla xam nga yàlla defal ñu ndam. waaw mais Mbaye par rapport ak. Mbaye guy gii. Tmax. Mbaye guy gii il dort kooku amagul date. le set yàlla defal ñu ndam ci kaw waa ji nu mu tudd sax. brise de mer. dañ koy la daan ko. la eh, la. Grand Yoff xajul ci kenn. maire la dëkk de. gis nga boo gisee lu tax ma gën a dellu si làmb ji. Siteu moo wax moo waral loolu. tax Siteu. parce que daf ma daf ma doon woo guddeeg bëccëg suba ak ngoon naan ma gaynde ma ne ko naam mu ne ma li nga toog foofu neexuma yow da nga bokk ci ñoo xamante ni muy man muy yow dañu bokk ci ñoo xamante ni dañu war a yëkkati làmb parce que làmb ji ñii fi nekkoon jàll. seen wàllu wéy na ñun ñoo ko moom te ñun ñoo ko war a yëkkati te incha allahu rabbi loolu dinaa ko wan ne ba tey ñoo ngi ci. te pourtant seq ngeen bés bu métti yàq tarkindaa boobu. terewul tarkindaa la mooy tarkindaa day neex bisu Baye Fall la bisu Baye Fall la mënul na xare parce que Serigne Saliou billaay walaay taalaay te noonu lay demee di ko bi mu jublu yàlla defal ko ci ndam lu sedd guy. loo ko ciy ñaanale parce que sama nita mais yaa ngi dëkk Grand Yoff près de Parcelles Assainies. mais Cité Grand Yoff la dëkk. Cité nu mu dëkk lay ay nijaayam jóge dem dëkk jàmm gën. ñoom Laurent ñëpp Grand Yoff lañ dëkk xanaa xamoo loolu yow. non laaj leen ñoom seen cosaan yëpp Grand Yoff la. man sax ñoom waa parcelle nga gën a jege ñoom Papa Sow. suñu mbër bi eh, nu mu tuddati eh, frère Cité bi beneen booy bu njool bi kii. non pas Abu Ñaase booy bi dëkk Grand Yoff tey mu gëj a bëri rek te mu dëkk kër kër di siise si booy séeréer boobu noonu di Cité di ñëw gaaleem tur bi laay fàtte hmm. si Cité day ñëw sama koñ ñoom loraa yëpp dañ fay ñëw. donc ñooñu ay Grand Yoff lañ jógee dem dëkki fa. moo tax bi daal moom nga ciy ñaanal ndam. non dafa leer même bu dul yeneen combat sax bu bëriwul waa ak waa Grand Yoff rek yàlla na ko yàlla defal ndam. moom si Siteu ak waa jàmm gan yëpp ku ci bëriwul ak waa Grand Yoff yàlla na la yàlla defal ndam. si kontaan ci yow jërëjëf.